وبعد أنا مسرور جدا بوجودي في هذه الحضرة المباركة هذه الحضرة العمرية هذه الحضرة التي آه، انبثق منها الجهاد وانبثق منها العلم وانبثق منها الخير كله فأما أرجاء الدنيا بأسرها ولم يقتصر نفعها ولم تقصص مزيتها على السنغال فقط وإنما عمت عموم القارة الإفريقية وتجاوزت ذلك إلى العالم أجمع وإذا استرسلت في الكلام آه، سأطيل لذلك سأقرأ لأنني إن ارتجلت سأطيل جدا فالموضوع خصب لا يستطيع أن يستوفيه الإنسان حقه لذلك سأقرأ ما كتبت من أجل أن لا أطيل عليكم الكلام عن الشيخ الحاج عمر بن سعيد البوتي رضي الله عنه ليس كلاما بوكي آه، لي شريف واخ لي مجيتلي دا فني كوم موم دا بين ليم لين نرا واخ تي نيوم بوني بيندي ديكو واختانه ديكو شرح داي غنا غود موني مام بور غاتال نيم كو بيندي لا كوي جانغي نون ريك بوكاري في موم نام كو واخيت ما ñew gattal ko teunk إن شاء الله الكلام عن الشيخ الحاج عمر بن سعيد الغوتي رضي الله عنه ليس كلاما عاديا عن أي شخصية تراد الترجمة لها فنقول إنها ولدت في تاريخ كذا وتوفيت في تاريخ كذا بل هو حديث عن ظاهرة كونية عن شخص صنع التاريخ حديث عن شخص صنع التاريخ وعن إنسان كامل جمع من المكارم ما لم يتوفر لغيره سواء من حيث العلم أو السلوك أو الجهاد فالحديث عنه رضي الله عنه هو حديث عن أمة لأنه كان أمة بما تحمل الكلمة من معنى ولذلك فلن نتكلم عن جميع جوانب حياته لتعذر ذلك ولحاجة المتحدث عن حياته رضي الله عنه إلى تسطير مجلدات كبيرة وأسفار عظيمة وسيكون حديثنا في هذه النبذة الموجزة منصبا على علاقاته ببعض علماء الشقيط فقط لأننا لا يمكن أن ندعي حصر من ربطتهم علاقات به وإنما نورد نبذة من أخبار من وصلتنا أخبارهم اتصل بالشيخ عمر الغوتي رضي الله عنه عدد من علماء موريتانيا ومشايخها وربطتهم به صلات مختلفة تتراوح بين الأخذ عنه والتتلمذ عليه وبين مناصرته في الجهاد والدفاع, والدفاع عنه بالسيف والقدم ونذكر منهم على سبيل المثال للحصر واحد العلامة أحمد بن محمد dafa ni shérif nee na lim bëgg a waxtaane bëgg ko wax ci Cheikh Umar bu fekkante ni lam ca war a wax la war a la wax dëgg loolu xajul ci ay téere dañoo ay téere yu bare bare bare mu ne kon kon comme jataay bi jataayu Thierno Bachir moo ni nañ fi commencé waxtaane mu nekk waxtaanu gannaaw xadara bi ñu war cee waxtaane Cheikh Umarul Fuuti mu ne bu ñuy wax ci kañ la judd loolu moom wax ci wuute yi bari na ci lool waaye li am solo te gën a am solo mooy Cheikh Oumar lim ñu fi indi lan la ak ñan la àndaloon nee na tey nag dafa bëgg ñi nga xam ni ñoom la àndaloon ci liggéey bi ci ay boroomi xam-xam yi nekk Mauritanie yooyu la bëgg a tudd kenn par kenn ak ni nga xam ni noonu la Cheikh Oumar ànde woon moom والحديث عن الشيخ عمر حديث عن أمة لأنه كان أمة نينا الشيخ عمر وقتان الشيخ عمر موي وقتان موي خير بس كي يالا دفني ان ابراهيم كان امه خمغا امه قانتا مام ابراهيم مام كيب موني ابراهيم أو خير لا أو خير لا موي lan mooy mbooleem lu baax ci xeet yi lépp mi ngi ci mi ngi ci kii إسلامية ne rek mi Cheikh Oumar kon waxtaane Cheikh Oumar bo waxe ci Cheikh Oumar ba pare jàppal ni ku bax rek waxtan ci mom jeul may tuddi ñeneen نبدأهم بالعلامة أحمد بن محمد التحق هذا العالم بالشيخ عمر وأخذ عنه وجاهد معه وثبت عندنا أن الشيخ عمر ولاه ديوان الحسبة في الدولة العمرية أي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان أحمد بن محمد هذا سفيرا بين الشيخ عمر مع المغرب كما نص على ذلك الأزمي في كتابه عن الطريقة التجانية حيث أورد عدة رسائل بعث بها أحمد بن محم إلى السيد العربي بن السايح والفقيه الكنسوسي يشرح لهم فيها حال الحاج عمر ويفصل لهم مهمته الجهادية ويدعوهم الى نصرته وتاييده وابلاغ السلطان بحقيقه جهاده وانه جهاد لاعلاء كلمه الله تعالى واموني كيمو تي جيك تود تي نيغا خامي ньо اندنا شيخ عمر ديكو ديمل تي جهاد مانام شيخ احمد بن محمد بوكنا تي نيغا خام نيغا خام ньо جيك تي ني عمر دون دون دون اندال نينا موم moo nekkoon daanaka ambassadeur moo nekkoon koo xam ne moo dox diggam ak kilifa yi am na ay ay lettres yu bare bare bare yoo xam ne doon na ko yónnee ci yenn kilifa yi nekk ci Maghreb pour ñu dimbale ko wan leen ni mi ngi leen di woote di wa bëgg a jihaat ci loo xam ni daf koo teg ci condition yi nga xam ne moom la islam tëral وحين رجع إلى هذه البلاد وجد ما عندهم من أخبار عن الشيخ عمر كله مغلوط فكان يحدثهم عنه في المسجد ويبكي وإذا ذكروا ما روي لهم عنه مما يناقض حقيقة حاله يقول لهم ما أجهلكم به وقد نجح أحمد بن محم في إقناع معاصريه من علماء الشقيق ومشايخها بصدق دعوة الشيخ عمر حتى تغيرت نظرتهم إليه نرى نرى الشيخ أحمد بن محمي بمو نيوي جوغي ñëw ci suñu réew yi ak xam gi ko yàlla xamal Cheikh Oumar nee na bi mu dikkee ñim dégg ñiy waxtaane Cheikh Oumar dafa naan ñi ñëw leen a Cheikh Oumar te kat ñun lañ daan dégg lañ daan dégg ñun ñëpp dañ ci daan kontaan ba tëb di dal ak di yéemu waaye mu xam gi ko yàlla xamal Cheikh Oumar ba mu dikkee dafa naan ñii mosumaa gis ñu réere Cheikh Oumar comme nii ترجم أحمد بن محمد في كتابه الذي سماه روض شمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر رجال الطريقة للشيخ عمر الغوتي ترجمة لا أظن غيره سبقه إليه إليها وتعتبر من أوثق تراجم الشيخ عمر إن لم نقل أوثقها على الإطلاق لأنه عاش معه وجاهد معه بسيفه ودافع عنه بقدمه وسأسوق هذه الترجمة كاملة هنا حتى تتم الاستفادة منها نينا الشيخ أحمد بن محمد دفع تعرف بين تيري بنيوخ رول الشمائل li وخ كان موي mooy أمر موم شريف مني يا ni yaakaarul ni am na xam Cheikh Umar te boo ko loo ci nett li ci moom kenn du ko weddi yaakaaru nit mën na koo xam ba xam ci lu raw li nekk ci téere bi ndax nag nee na nit buy bind ci nit mën naa am lenn da koo laajte mën naa am da ko gis ci téere nee na moom nag dafa ànd ak Cheikh Umar ànd ak moom ci jihaad ànd ak moom ci tukki ga kooku lu mu ci moom rek loolu dëgg euh, nasu tarjama ومنهم شيخنا امير المؤمنين وانيرم ميغي نيتلي نك ترجمه ومنهم شيخنا امير المؤمنين عمر بن سعيد الفوتي فتح العقاليم والبلدان وكسر الاصنام والاوثان وانار القلوب والابدان وطهر السرائر والاعلان له سيوف ورماح حسيتان يجاهد بهما المارقين عن الشريعه المحمديه وسيوف ورماح معنويتان في علوم الحقيقة وأسرار الطريقة التجانية من الش... بمي بميكم دي واخ موم لي لا كوماسي بن وقت شيخ عمر دا فني كي وقت شيخ عمر يلا ديمبلي نكو mu ñëw beesalaat lislaam الإسلام lislaam leeral yoon yi taalif ay téere ba pare jàngale ba pare fóot xol yi jël jaasiyam nag dafa am jihaat boo xam ni jihaatu wax la am jihaat boo xam ni jihaatu jàngale la am jihaat boo xam ni yëkkati sa jaas yi dem bi xeex la nee na kii may wax muy Cheikh Oumar nag façon jihaat yooyu yëpp def na ko jàngale na yar na xol yi defar na jikko yi jël na jaaseem fekk ñi nga xam ni dañ leen a woo ñi bañ mu forcé leen xeex ak ñoom ci jaasi اتفق علماء عصره وأولياء قطره على أن الزمان لم يسمح بمثله وأنه ممن يقدر إذا إذا عطلت إذا تعطلت الكتب من الدنيا أن يمليها على الناس من حفظه ولفظه نينا نينا نيب داكور نانيو ني ci بن واخ نينا شيخ عمر Omar جامونو كوميل نامون جامونو na moom jamono feeñalu ko xam nga jamono jamono bu nek rek day am ñu feñal neena Cheikh Oumar ñim jamonoon teel am ci kenn kenn ku mel na moom te it ñëpp d'accord nañ ni bu ñu xëyoon téré yëpp raaf alquran ak kutubu sunna yëpp ñuy daal téré amatul bu ñu waxee Cheikh Oumar dana bindaat kamil yi bindaat téré ما ذكره هنا أحمد محم عن الشيخ عمر رضي الله عنه هذا من أخص صفات القطب لأن القطب هو الذي إذا امحت هذه الدواوين يستطيع أن يأتيها بحفظه ومن هنا ضل اليهود في عزير ضل اليهود في عزير قالوا عزير ابن الله لماذا قالوا انه ابن الله لان التوراة فقدت في زمنه فاملاها من حفظه لما املاها من حفظه قالوا انه ابن الله وليس بشرا عاديا نينا لي ني شيخ عمر ni bu téere yi raafoon mu bindaat ko nee na loolu lañ mës xam ci àddina bi àddina day bu ñu wax naan diw moo fi ëpp xam-xam mooy koo xam ni bu téere yi raafoon mu defaraat ko na Useyr alxuraan dafa ni yahud yi dañ ne Useyru mooy doomu yàlla ndax Useyr maanaam dafa nelawoon téeméeri at nelaw téeméeri at ba mu yeewoo pour ñu bëgg a xam ndax kii moom la war a déet dafa fekk tawreet bi yàlla wàcce woon ci ci yàlla Moussa tawreet dafa raaf kenn ak kenn gisatu ko am na ñoo xam ne si xam kenn ku nekk xam na ci benn baat kenn ku nekk xam na ci benn saa waaye Ousseynou ba mu ñëwee dafa bindaat tawreet ca commencement ba ba ba ca mujj ga ñëpp seede ni tawreet ñu wàccee woon ci Moussa mi léegi nag. amuñu lenn luñ ko mën a misaale daan Useyru mooy doomu yàlla mu ni ñun nag duñ ni Cheikh Umar mooy doomu yàlla waaye la la yahud yi gisoon ca Useyru bari doomu yàlla la ñun Cheikh Umar yar nañ yar boo xam ci duñ ni doomu yàlla la waaye la yahud yi gisoon bay doomu yàlla la ñun daañ ko daa gis nañ ko ci moom ba ñu kii xutbun min aqtaabillaah يطلب للناس وكم من واحد أدف في كراماته تألفا مفيدا فلا قدرة لي هنا على إرادة على إرادها ذكرا وتعديدا إلا أن يتحقق فيه من خمس مسائل هذه الخمس مسائل قال أحمد محم إنه يتحققها في الشيخ عمر وانتبهوا لها جيدا انتبهوا لها نينا أمنا كرامات يموح نينا أمنا جروم juróomi nit yu leen di bëgg a wax nañ ko déglu bu baax a baax nee na juróom yii Cheikh Maham nee na yëpp mi ngi ci Cheikh Umar. muntabihu hada kaana maahu nee na li tax li tax li lii ma ta déglu kenn ku nekk la ngay wax ci sa sëriñ nam nañ ko gën a mën a rëyale ngay wax kenn ku nekk danaan sama sëriñ lii te fekk dañ la koo nekk yi walla nga gis ko ci téere wala ka ko wax wóorul ba xam loolu lu am la wala déet. نينا كي دافا دوندك شيخ عمر با بري نا دي نيت يالا دي بوروم خام خام نينا جوروم ييمان مي تي شيخ عمر تي نان جيب گم ني كي كي واخ دافا نيكون شيخ عمر لا لا يتحقق في خمس مسائل اولى الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظات نينا بنتي جيك واخ نينا شيخ عمر naag yonent bi jaxasoog moom ci lu dul nelaw xam nga yéen saa salaam wax nañ sax ku ma gis ci nelaw danga ma gis ci yeewu neena na Umar du gént du nelaw du dajjant dafa daan toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu mësaan werante xadis wér naam wéru te day geesu ni يا رسول الله يا كو خول دي من كو ما كو ولا اجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم في لول الثانيه ادراك الاسم الاعظم الكبير دا خم خمغا كين كو نيك ياغي نان تور يالا و ماغي يالا امو تور و ناو تور يالا ييب ماغ مي بوج نان تور يالا و ماغي واخيل لا موي تور و خامني سي boko xasse bo ci ñaané yalla boo ko ni woon nañ fay sawara bu fay sawara boo ko ni woon damaa bëgg nga jël caabi àjjana yëpp teg ko ci sama loxo bu def ko boo ko ni woon bu kenn dem sawar kenn dem sawar boo loo ko waxoon mu def ko nee na tur woowa yàlla xamalu ko ñëpp mu ni Cheikh Omar nag tur woowu tur xamal na ko. الثالثة سماعه لكلام القلب Cheikh Omar xam nga dañuy maanaam Cheikh Omar boo musaan toog ak moom bul wax dara li ci sa xol mën na la ko boo même boo waxul li ci sa xol mën na la ko wax mën nga tok rek mun la yow yaangi nan nangam yaangi wax nangam la xol di wax neena Cheikh Oumar yàlla xamaloon nag ko. الرابعة وجود الإذن tarbiyah wal-irshad التربية والإرشاد ila Allah الله woote jëm ci yàlla ku nekk ñu koy def yàlla dafa ne won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ni ko udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana da koy jox ndigal ni ko wooteel ci yàlla wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim nee na ndigal loolu yonent bi salaa sallam amoon bay woote ci yàlla ndigal loolu isnu xaas boobu Cheikh Omar yàlla defaloon na ko keneen ku keneen ku amul isnu boobu da ngay jot li waaye defoo dara ku am ndigal loolu nag ku mu waxal rek نوراني جب يلا دي الخامسة الإذن الخاص في الجهاد وسمعت هذه المسائل منه مشابهة وصححتها عنه معاينة نيانا جرومي نيانا بكي بكي جرومي خمد لولو لمتا الله ñi nga xamni ñoy nek ci rew yi jek jek rek dugg ci ben rew rey ñafa nek daan dañuy jihaat ñooñu amuñu ndigal jihaat fekk ay nit ñu julli seen jàkka nga dem toj jàkka ya daaneel bàmmeel ya damay jihaat nee loolu du jihaat jihaat fokk dangay ngay am ndigalal jihaat nee na Umar nag ci jamono amoon na ndigal ci yëkkati jaasi dem xeex ci lislaam keneen ku dul moom ci jamonoom nga dem yëkkati jaas yi dem di xeexi buñ la reyee da ngaa xaru moom nag ñi àndoon ak moom ñëpp ay suhadaa lañ parce que am na ndigal ci yàlla سمعت هذه المسائل نينا نينا نينا احمد ابن محمد دا فني جوروم يي ما لين واخ ماكو دغ سي لامي شيخ عمر اك سما نوب نينا لي ما جوروم يي ماكو دغ سي لامي شيخ عمر اك سما نوب وصححتها عنه معاينه نينا نينا ba ma ko daataan bindit toog naa ni ko lii nga ma wax laa bëgg nga jox ma ci ndigal pour nga nettali nga waxal ma ko mu ni ko nii ma la ko waxee noonu la amee te noonu la ko yàlla defee نشر الطريقة وبثها ورفع سقفها وسمكها وأخبرني أنه ربما لقن الورد لألوف في وقت واحد نينا نينا الشيخ عمر متستسارنا طريقة تجانية نينا شيخ عمر واخنا كارما لول ما خوب نوي امي نينا شيخ عمر موكو ني لوما جوتني لين طريقتي ياني شي شي بن وقت بن جتاي ولا بن وقت دوخنا لوما جوتني اي جوتني وخول بن جوتني اي جوتني لول بشي دومو ادمي رك بشي دومو ادمي مانام نيغا خامني نون لا دومو ادمي دون جابي وير بي موم noonu la sunu mbokk jinne yi daan jàppee weer bi ci moom te ñi may weer ci jinne yi mu ëpp ñi may weer bi ci doomu aadama yi euh, wa anna lahu talaabir min nee na am na ay taalibe jinne ci tariqa tijaani te jinne yi nañ doomu aadama yi fukki yoon kon ñi may ñi may weer bi ci jin ci jinne yi ëpp nañ ñi may ci doomu aadama yi fukki yoon te ñoom ñëpp ngi ci ziar bi nag tey jii. وفيه يقول المختار بن وديعة الله هنئتم يا أهل فوت بكامل طب خبير بالدواء مطبب لا شك في تكليفه عن شيخنا ختم الختوم من مد كل مقطب nee na sëñ nee na sëñ bi mooy borom wayi mooy ndokkeel waa Fuuta nee na Fuuta maa ngi leen di ndokkeel yéen day ñu jara ndokkeel ngeen ndax هنجيب هنجيب له هذا يا يا اهل فوت بكامل ابن خبير بالدواء مطبب شدوا بايديكم عليه فانه كبريت الاحمر عند كل مهبب شيخ ابن الفوت للمقصر عن دخول طريقتنا المثلى أسست تجارة في المكسب لا شك في تخليفي عن شيخنا ختم الختوم ممد كل مقطب ولمن أبى لقياه في أيامه إن المراتب قد سعوناك به شيخ عمر الفوتي إنا وإن كنا بأرض لم نسل منه إليه بجسمنا المتقرب فقلوبنا تشتاقه وتودون إرنا إليه بروحنا المتغيب شيخ عمر الفوتي المرء ما محبوبه قول الروا أهل الحديث الرسول الأنجب يقول أيضا ابن وجهة الله يا صاحب الوقت يا مصروف يا وزر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا صاحب الوقت يا منصور يا وكا يا صاحب الوقيان الشيخ عمر يا صاحب الوقت يا صاحب الوقت صاحب الوقت نك بني كو وخه موي جامانو بو نيك امنا كو خامني ياو يا خليفه الله في الارض فرض الجامي كين دون لاي دون موم لي نتي صاحب الوقت كل زمان دان كو صاحب الوقت موم شيخ عمر نك يوي ييب داكو رانغو وون تي جامانو واي موم نينا yooyu mu ràngoo woon yooyu mu ràngoo woon yooyu soxlawu ko li mu li ko ci gën a réel mooy li mu nekkoon taalibi tijaan waaw mu ni ko nag sëriñ bi ne ko nag yow mi nga xam yaay saaxibul waqt yow Mansour yow mi nga xam yaay wéeruwaay yow wéeruwaay gëm naa ni yow wëliyu yàlla nga yow Cheikh Oumar ذكر احمد محمود قال وخرج انا تركت الاشعار من أجل الاختصار وخرج من بطن أمه جافا لم تترك أمه صلاة واحدة و... نينا بوكنا كي يالا تيرالي شيخ عمر بوكنا كي يكو يالا تيرالي موي لا أمون كي يانتي صلى الله عليه وسلم دنجي koy wax ci yonent bi yonent bi dafa am ci دا dafa am benn chafam bu ñuy wax chafa chafa ku mësaan am doom moom muy ñëw defar la manam sang xale bi top tola waye shafa bi yonent sallallahu alayhi wasallam juddo dafa dik fekk ko mu melne xale bu yaayam uufoon de genné ko ni gisul dara muni se Cheikh Maham ni na neena na Ahmed ibn Maham neena Cheikh Umar bi mu gagné adina yaayam bayiwul ben julli waxtu ba mu bamu mu ganee àddina waxtu julli wa ca teggu yaayam julli na ko ndax loolu ñuy wax gësën amul ci amul ci yaayam na na mu génne dafa mel na yaayam da ko uufoon rek laxas ko daal di génnee waxtu julli wa ca tegu yaayam dafa jàpp dem julli ji. wa kaana la yardaxu fi ramadaan nahaar. Cheikh euh, Seydina Cheikh Umar loolu ñëpp seede nañ ko weeru koor weeru koor ci jamono yi muy nàmp. كين مول تفخه يا يم جيب جيم بفجر خسي جت فيك دل بسول حرب النام لول مم يبصر من لول وإنما يرضع بالليل بدي لك يبكي بغنام وبشرت به الأولياء تبوهارة اللي وردوه سجمه قال الكلار سيد نو كاويس نتوكو هارا هلو هرو دوسا جابو إنا سنجي تويا وابتاوي يا بكيواني kanko woni baɗɗo waɗi watti ko ɓe manno ko waɗi ko waɗa felloyde jihaadi ñamtini ɓurɗo amani cheikh namdol foutira jarama وبشرت الأولياء به قبل ولادته وبشرت الأولياء به قبل ولادته نينا نينا بوكنتي بوكنتي كيما الشيخ عمر أولياء يكو جيتو comme ni nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu daataan ñëw wax xam nañu ne ak ñëwam nee na Cheikh Umar ba mu daataan ñëw wali yi nga xam ci ñoo ko xam wax nañu ak ganeem àddinaam wattafaqa alxalafu wassalafu ala ilmihi wa salaahi nee na xam-xamam moom kenn wérante ko ñu jëkk ya ak ñu mujj ña ñëpp ci bokk yam ñëpp d'accord nañ ni Cheikh Umar boroom xam-xam la الشخص الثاني الذي كانت له علاقه مع الشيخ عمر من الاشخاص التي كانت لهم علاقه مع الشيخ عمر هو المختار ليغي دا فا دا فا عندك شيخ عمر كان لا تي دون ليغي ميغي واخ كرين هذا الذي تكلمت عنه اولا هو احمد بن محمد جاهد معه بسيفه ودافع عنه بقدمه كم كم وعاش وعاش معه حياته كلها وكان بعد شيخ عمر مع ابنه احمد حتى توفي في سيغو ودفن في سيغو الان قبره موجود في سيغو نينا كي مو دون واخ ني موم دا فا عندك شيخ عمر جهاتك موم غناو شيخ عمر mu bind شيخ عمر nek دوم شيخ احمد la mujj nekkal ba سيغو لا gene fa واخذ الورد عن الشيخ عمر الشيخ عمر موجود قد ورد رضي الله تعالى عنه آه، آه، الثاني المختار ابن محمد بن بابانا مختار ابن محمد بن بابانا موينار هذا كان وليا صالحا لا يختلف اذنان في ولايته وكان تقيا نقيا ووالده محمد هو الذي اظهر الله على يده الشيخ محمد الحافظ لأن الشيخ محمد الحافظ عندما جاء من الشيخ التيجاني عندما أراد أن يذهب من عند الشيخ السيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه قال له أوصني قال له لا تظهر حتى يراك الله في يوم من الأيام آه، كان الشيخ محمد الحافظ يدرس طلبته العلم الشرعي جاءه محمد بن بابانا ووجده مع تلامذته فأجله الشيخ محمد الحافظ وقام له عن مجلسه وقال له ماذا قال له أريد الأمانة التي جئت بها من التل قال لو جئت ببعض الكتب وماء زمزم وكل ما تريد من ذلك فهو لك فقال له آه، محمد بن بابانا دعني من كل ذلك انا اريد ورد الشيخ سيدي احمد التجاني فاظهر الله آه، الشيخ عبد الحافظ على يد هذا الشيخ على يد محمد بن بابانا وهذا محمد بن بابانا هو والد المختار الذي سنتكلم عنه الان محمد بن ابن بابانا مي بقى بغا wax nak ki nak xam nga kuñ tudd rek Mouhamad Lamine Babane mii bokk na ci ñi àndoon ak Cheikh Oumar te moom mii nag bokk na ci teraanga yi ko yàlla defal Cheikh Mouhamadou Hafiz al Arabi ba mu demee Makka ba fa demoon Makka mu daje daje fa ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jox ko werd Tidiane yi booba kenn xamu ko fii ci sowu jant Cheikh Ahmed Tidiane ni ko boo demee bul siiwal sa bopp bul ni mukk indi kaay leen ma jox leen yàlla demal rek toog feeg yàlla feeñalu la feeñ ah mu ñëw rekk toog nit ñi siyaare si ku siyaare si mu jox la sam jox la sëriñ Muhammad ibn Babaana mii nag ci yokk dara sax Mouhamad Lamine Babaana moom jamono bu nekk da daan gisanteeg yorant bi di nuyoog moom loxo ndeyjoor bi mu daan nuyoog yonent bi moo gën a gudd loxo càmmoñ bi moom ñëpp loolu lañ ko xam ne loxo ndeyjoor bi moo gën a gudd loxo càmmoñ bi ba mu dikkee comme moom yàlla xamal na ko ba mu ñëwee ci Cheikh Mouhamadou Hafas daf ko ni sëriñ sama sëriñ laay jël si. sama sëy ca laay jël si Cheikh Mouhamad daal dugg ci biir génnee sam bi indi tàndarma indi téere yi ni ko loo mu ne ko lii indi wuma sëricë sëricë si werdu tijaan yi wa nga jële màkka moo ma fi indi moom laay jël si nga jële fas te Cheikh na am tijaan jox la ko woowul moom laay jël si nii هذا آه، مختار المختار هذا ابن محمد هذا المختار ابن محمد مانام كي مختار مختار ابن محمد لم يقول بابا مولا دجال نعم. محمد ابن بابا مود مو جور مختار كي مختار مي وي آه، المختار ذهب الى الشيخ عمر من اجل الجهاد معه فلما راه الشيخ عمر آه، رجلا كبيرا في السن ضعيف البنيه له أنت لا تستطيع الجهاد أرجع آه، إلى بلادك قال له المختار أنا جئت من أجل أن أجاهد ولا يمكن أن أرجع إلا إذا اختبرتني وتبين لك وتبين أنني لا أستطيع فالشيخ آه، عمر دعا بحصان بفرس فجيء به قال له اركب على هذا الفرس عندما ركب لم يثبت على الفرس سقط قال له الشيخ عمر استريح يا شيخ وأعنا بدعائك وأعطاه الشيخ عمر سر صلاة الفاتحة وقال له إذا رجعت إلى بلادك لقله الاثنين فقط عندما رجع إلى بلاده جاءه الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ الذي سنذكره وجاءه كذلك أحمد بن بدر الذي سنذكره وقال له الاثنان اللذان امرك الشيخ عمر ان تعطيهما سر صلاه الفاتحه هما نحن فاعطاهما اياه mu ne muxtaar ibnu muhammad lamin baaba mii ba mu dikkee dafa ni Cheikh Omar dafa nekkoon nit ku tuuti koo xam ne si moom daanaka mënul dara bu demoon ci jihaad buñ koy ëpp muy daanu mu ne Cheikh Omar damaa bëgg a ànd ak yow ci jihaad bi Cheikh Omar ni ko yow loo ñu jë loo ñu jëriñ ci jihaad bi loo ñu jëriñ ci jihaad mu ni ko déet bala jeexal natt ba pare Cheikh daal di wut benn fas ni ko léegi na war ci fas yi ba mu waree yor rek daal daan mu ni ko wax naa la ni la yow kay li ñu la digal li nga ñuy dimbalee mooy yow féete woon salaatul faatihi daal koy jox secret salaatul faatihi boo xam ni ko boo demee. nan ko jox ñaar képp nga koy jox al awal moom ba mu demee def ko ni boo demee jox ko ñaar képp bu ko jox ñaar yi képp laa la ko jox loolu léegi nag waaye waxu ko kan ak kan ba mu dikkee nag ñaar ñii man ma Cheikh Ahmed doomu doomu Cheikh Mouhamad Haafis ak Ahmed doomu Ahmed Ahmed Ibnu Baddi ñu ñëw ni ko am na secret bu la Cheikh Oumar jox yow Cheikh Mouhamed dafa ni la bu ko jox lu dul ñaar ñaar ñooñu mooy ñun ñaar ñii nga xam ni kon Cheikh Oumar ak kim ko jox ak ñaar ñim jëm ci ñoom kenn gënu lay nekk ay bër الشخص آه، الثالث أحمد أحمد بدي أحمد بدي هذا هو خليفة آه، حسان الطريقة بدي بن سيدينا وكان إماما جليلا عالما وكانت الأخبار في بداية أمرها تصله مغلوطة عن آه، الشيخ عمر عندما جاء أحمد بن محام وأخبره بحقيقة الشيخ عمر كتب كتابا في الدفاع عن جهاده والكتاب اسماه كما ذكر نور طال آه، آه، قبل قليل آه، الدرع المغفر في الذب عن الشيخ عمر وهذا الكتاب آية من آيات الكتاب الدرع والمغفر في الذب عن الشيخ عمر ألفه أحمد بن محام كذلك أحمد بن أحمد ألفه أحمد بن بدي كذلك أحمد بن بدي دخل في الصراع الذي كان بين آه احمد البكاي والشيخ عمر لان احمد البكاي آه، مناهضته للشيخ عمر تسببت عن انكاره على الطريقه فكتب في ذلك ورد عليه احمد بن بدي في كتاب اسماه العظم اليماني في الذب عن الشيخ التجاني كما رد عليه الكنسوسي من المغرب في كتاب اسماه تبكيت البكاي. ki mu ciy bëgg a teg mooy Ahmed ibnu Badji ci ñi nga xam ne si ñoo ànd ak àndoon ak Cheikh Umar Badji nag Badji dé euh, dégg naa ci sëñ Abbas sami'tu mina Cheikh Abbas yaqul bi anna al malaayika hum alladina sammahu Badji mu ni malaaka ay malaaka yi ñoo ko tuddee woon Badji ndax kéemaan bu nekk ko ci moom nee na nag Badji mii Ahmed ibnu Maham ñë ba mu ñëwee la ko xamal kan mooy Cheikh Oumar la ko xamal kan mooy Cheikh Oumar mu jël xalimaam bind ci moom ci jihaad yi nga xam ne si doon na ko def te it taalif nag téere boo xam ne si ñi nga xam ne si al abdul yamani. teel a jihaad bid'u madfar fi zabbi an Cheikh. moo waaw moo taalif téere boo xam ne bid'u madfar fi zabbi an Cheikh Oumar maanaam jihaad gi Cheikh Oumar defoon. te am ñoo xam ne dañ ci doon jéem a ŋàññi ak a weddi mu taalif ko tuddee ko abiu muzaffar fi jihaad al cheikh omar bido bido ak dira ak al muxafar naam wal الدرع والمغفر الدرع والمغفر الدرع ak مغفر benn la درع mooy yére weñ bi ngay sol مغفر mooy mbaxane weñ bi muy nag الدرع والمغفر في الذب عن شيخ عمر ما نم تيري بدفقول تاني مبوب ما نم مبوب كم أجمعنهم كم لايسول غير دفن دمية كم يبغى شيخ عمر نعم كذلك الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد الحافظ هو الرابع هو هذا ابن الشيخ محمد الحافظ الرحيم وكل نسله منه آه، هذا آه، نظم نظما طويلا جاء به آه، الشيخ ملتقى طال في كتابه الجواهر والدرر جاء بالنظم كاملا وهذه المنظومه منظومه طويله يذكر فيها مناقب الشيخ عمر يقول له في الشيخ احمد بن الشيخ نعم. هذا ابنه الوحيد نعم. يقول له قد سقيت ذات الولي الشيخ عمر محبة النبي سيد البشر وتحدث عن آه، مسألته مع أهل مصر وما حصل له معهم وما حصل له في بيت المقدس حتى أنه صار يقول وأهل بيت مقدس قد جاهلوه حين به إلى الصلاة قدموا نينا آه، أحمد ابن محمد حافظ مي محمد حافظ بن دوم بابو am موم taalif na تالف بو خامني دي شي شيخ عمر موم لا دون جانغي doon jàngee nee na euh, man ataaw من اساس الكتاب جاء, جاء به الشيخ منتقى كان كان منتقى تال تيري بوبو نينا قصيده جواهر والدرر جواهر والدرر جاء بهذه القصيده قصيده بي اندي نكو فا لب موي بيغا سي احمد ابن محمد حافظ وخون نكو شيخ عمر يرحمك bandiraɓe ceerno mouhamadoul yahya ba kañum yetti joni eɗen gandi ɗeɗo golle ko kamɓe puɗɗi ɗum kankoye ceerno moultaka ba rahmatullahi aley ceerno al huseyni keɓe en ceerno mohtar basum en e ahbabuji mahmoud basum kamɓe puɗɗuno ɗeɗo golle ceerno moltaga ruttima e joomum ceerno alhuseini keɓe ruttima e joomum ceerno mahmoud basum hande ɓanndu ndu hattanani kanko noon allah ɗowimo ha allah addimo bandiraɓe joɗɗe toon wota gare koko heewi joɗɗe leydi joɗɗe leecee ay goto wotano joɗe joɗo ɗe sharif o ko haalata koye cheikh radio omar ceerno ما شاء الله فخ ماكو الشيخ عمر الله اديم جوني او اري لم دي خليفه شير محمد البشير منتقى طه الشيخ عمر شير نولو شيخ تجار مكي ناني وي با ما شير محمد اليحيى ما هو ار او توتري حفله الله اديم كانكو نيل نوتو bisimilla ma seydi ba julɓe fof no ñaganama yo allah hokka cellal yo allah lowma cellal e hattan an e ceer mouhamadoul bachir saabu ko woni koɗo koye fuɗɗumi ɗum jeyɗa gila e ndamdi gootiri ha woni hande ujunere ngaari ɗum noon allah wurnima ha tawama ɗum taniraɓe ma e ɓiɓɓe ma ƴetti relevé o ƴetti dongal ngal ndo nan jogui gara tawtoreɗa e jonde nde dokka ɗumen duwaw beltina ɗumen ko yettere allah bandiraɓe muñoɗon pular o ko sharif o haali koye arab mouhamadoul amin sall no fira ɗum e jolfe ceerno hamidou yaraɓan e ceerno sharif makki nanɗo hayso ɓe mbattani foof e pular ma won koɓe jubbani on e cheikh omarul foutiyu tawa goto moom fof so hooti ɗum mi heddo ɗerɗe mum ha ñalawmo arta ɗum noon ceerno mahamdoullah bisimilla sherif tofaddal نرحب نرحب بأخينا الأكبر وعوض والدنا تشيرنو يحيى به نرحب به ترحيبا حارا خالصا صادرا من أعماق القلب فهو بقية السلف الصالح عرفناه مع الأكابر وكان برا بهم والحمد لله آه، نرجو من الله سبحانه وتعالى يمد في عمره حتى يسير آه، آه، حتى يقتدي به الجميع حتى نقتدي به نحن جميعا اي bandiraɓe من نياغا yaafoye tan andi haala kam e mi yinno بولار مي e نيوي ka nanoɓe nanoɓe jol fe ɓuuri hew nanomi haal pular somi haali somi firino a ko sérif haalato e pular ma won kewɓe ɓe nanata ɗum eyyi ɗum waɗi mbattimi ɗum e pular tan mataw hewɓe mae nana ɗum e wallahi wallahi ko ɗum waɗi kala soon min haalde pularabetikam hay min haalde haalde pular ɓuurini kam haalde jol ko ɗo ɗo e galle e jawmumi haal pular ko ɗo min neha ko njàng mi qur'an e gandal fof min ko ceerno mi andano mo wona ceerno ci eyyi ko o galle galle fof minen pittino ɗum minen cettino gawri ɗo min mi wowa no wowi o galle buri no wowi galle ceerno abbas e cukaga min cikkan cikkanno kon ceerno ci tan woni woni ceerno ey joni noon nanoɓe jolfe buri hewde nano plan te rabbina harakata ko ɗum waɗi men kal shérif iwan ah. uh, sakko hamis shérif daron bawal ceerno yahya di wax ni maanaam